alors dañ fi def entretien euh, nga ne ma mooy boobu c'était presque deux mois trois mois avant l'élection boobu président Macky Sall convoqué gul le corps électoral signé gul le décret de convocation euh, du corps électoral gars yi tàmbali di lam-laame waxu report élection Souleymane Jules Diop wax Boubacar euh, Camara wax ma interpellé si nga ne ma confidence la Macky Sall moo la def ay confidence ne du reporter élection il est prêt à partir il se prépare pour aller euh, se, se, se, reposer et profiter de sa, de sa famille. Aujourd'hui, mu am revirement. Nan ngay expliquer yow revirement boobu est-ce que entre-temps vous êtes entretenu euh, ba nga xam lan moo waral revirement non entre-temps on ne pas entretenu mais problème mooy il faut ngeen xam ni lii du lu Macky sàll préparé maanaam yu bari dañ naan Macky sàll moo ko tey moo non lii du lu Macky Sall préparé amul kenn ku informé wala nga wax ak président avant lii di am jàpp ne président ndar woon def élection yi déedéet maanaam lii jàpp naa ni fin janvier les derniers jours de janvier <coughs> xëy na la dugg ci bopp Macky Sall waaw mais ba ba non attends attends attends attends parce que ba les derniers jours de janvier man gis naa ay kilifa yoo xam ni Macky Sall na leen di waxtaan ak ñoom pour ñu jàppale Amadou Ba yaa ngi rek dernier jour de janvier la man ba parce que maa ngi agsi France le premier février dernière semaine janvier bi yépp euh, am na ñoo xam ni Macky Sall mi ngi leen doon recevoir di wax ak ñoom ak di kii pour ñu jàppale Amadou Ba da wax bi te boobu yépp amul benn indice maanaam daal ci gàttal man la premier février laa dégg li ma dégg te xam naa ni boobu it mi ngi soog a am parce que loolu bu amoon fekk ma nekk Sénégal dama koy xam waaw le premier février laa ci waxtaan ak yow na la man li ma dégg mooy lu bees la loo xam ne Macky Sall dafa nar a reporter élection yi et puis le 3 ci la def discours bi donc daal du lu Macky Sall préparé du lu Macky Sall naroon du lu mu bëggoon a def. Ah, am na nag lu xew ci dernier fan yi nga xam ni mooy fanu janvier loo xam ne moo indi lii loolu moom man moom la laa jàpp